استطاع ذهابة ولكل نفس في الندى كالرجاء شرطي ماكو اخ نا والرخي لم يندل محمد دونه كالصيف لم تضرب به الآراء لم تضرب به الآراء كالصيف لم تضرب به الآراء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء تبارك من يبدفني نما قلت يا محمد ذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباب المعجزات غناه شرج بيس ما أكرم بمن سجدت الأشجار لأجله وخادت الأنهار شكا إليه جمل المولى من فتن من ولما يضخاه وشهد الدب له رسالة والذبو والذيب بلا مجادلة وقبل رأس النبي إشاطه كما أبي قد أنبع الرواة الحجر إثبات عين قطادته بدون ما صفها ردت كما أكانت باللمس المصلى والبيت قد مال مع الأركان صاجدة المصطفى الأدنان أصنامهم قد نكست للأبي وشرور العدا ذوي العناد كلمه الدب وحن الجزع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات البدر النبع المائي بين الأصابع بلا براء وجزيا كوكودي أن محمد المختار قد نفلن وأصلي أن يا إلهي وجهي من أن محمدنا المختار في الخدم تبارك الله جزاكم الله خيرا mu ne soxna Astu benn góor ñemewu koon mu ne te nag moo yoroon daara ji di jàngale nee na bu xesaan toog bay jàngale doo ko ñemee xool sëñ dooy doy nettali mu ne ma du man du Cheikh Tidiane du kenn koo xam ne jigéen ji bu la xoolee rek xam nga lim la wax nee na Mansour boobu la toll ci waxantu ak doxantu nee na sëñ Mansour ñëw ne ko ci gis booli beñe bi comme soxna Astu dafa tàng ñemewul koo laal ndax ñépp xam nañ soxna Astu kon nag mu yóbbu ko laaxira nee na mu xool booli beñe bi ñemewu cee jël ci gone nee na mu ñëw fekk sëñ kër si fa mu toog téye ci loxo bi ne ko maam kaay nee ñuy dem di dem di dem ba ca booli ba mu ne ko maam lii dey ci laa bëggoon nga sàccal ma ci mu ne sëñ Babacar si ne ko laa hawla wala quwwata illa billahi Mansour sàcc ñemewu ko dal ne ko kaay moom it téye ci loxo sëñ Mansour ñu ànd ba ci soxna astukan nee mu ne ko soxna astu mu ne ko labbayka si mu ne ko kaay ñu téye ànd ba ca booli beñe ba mu ne ko lii day booli bii li ci nekk man mii ak mansoor mii ñooy ànd di ci yelwaan ku ñu sarax <laughs> loolu ku ci mën dara nee na soxna astukat ne ko am nga sens boo ci laaloon ba ma jàpp la nee dal di sëq ci beñe bi nag jox ko waaw ah, waaye moom nee na sàccu ma moo ma may loolu lay lay loolu tamit ñun ñëpp war nañ ci jàng da ciy jànge ne sa alalu soxna lu nekk nekk sa alalu soxna taxul nga moom ko sa alalu borom kër lum nekk nekk sa alalu borom kër taxul nga moom ko balaa nga caa soppandiku na ko tàggu balaa nga caa soppandiku na nga ko yëgal waaye sama soxna la rek. maa ko moo ko moom dama ci soppandiku nu mu ma neexee déedéet wala sama jëkkër la moo ko moom maa ko moom dama ciy soppandiku nu mu ma neexee déedéet lu mu ci mën a doon ñaan ci ndigal ndax soo ko defut sàcc lay doon kon nag imam kàddu gàngoog ah même bu dee crédit yi balaa ngaa jël sa portable soxna ne ko may ma ci ma woote ci waaw moom it balaa mooy jël sa portable na la ne may ma ma woote rawati nag portable waaw portable jigéen ñi ko ci wattandiku war a góor ñi ji jël sa portable lu morom loo ca gis yow loo ci gis yow te tooñu la nag te bari na góor ñoo xam ne bu seen soxna di teg portable ñu ne ko cas di fuye gaawantu nag di xool-xool loo ci gis te jasus la tudd yàlla tere na ko yow jëkkërit sa jëkkër wàcc yow soxna teg portable am dugg ci wanag wi di sangu nga gaawant yaa nga ca message ya du noonu waaw du noonu yépp sa armoire soxna sa portable soxna sa cartable soxna sa saagu soxna sa yoon newu ci loo ci laal joxu la ci permission am nga bàkkaar bàkkaar bu rëy nag yow soxna si sa borom kër saagam kalpem poosam doonte yaa koy fóotal boo fuyetee ba gis bu dee xaalis la delloo ko bu dee lu dul xaalis tey lor nga xam ne secret la suturaal ko te yëg ne yàlla nee na ko suturaal jaam fii ma suturaal la ëllëg ñaari yoon mu ne ko xawwi sutura jaam fii ma xawwi sa sutura ëllëg kon nañ suturaalante waaw surtout way dencante kon imaam Mouhamad lamin Diop kàddu gàngook bismillah di bëgg ci ki nga xame ni di bëgg itam ci ki nga xamee ni moom la jox njabootam moom la dénk njabootam nee na fa tabaarakallaahu gis na ci yar gis na ci mbaax ak diine loolu mu ngi ma ko doon jottilu loo mais nitu diine dëgg la moom mi fa tabaar sonn ci diine ak def ci diine ak bëgg nitu diine di nuyu sama mbokk yi bi nga fekk yépp nag fa tabaarakallaahu al imaam ak sama mag ju baax ji fa tabarakallahu sunu sëriñ bu baax bii nga xam ni Mansour bu sëñ Cheikh fa tabarakallahu ak làqoom bu metti bi fa tabarakallahu suñ soo bëggoon a xam nit koo xam ne moo ko wuutal ci Sénégal toogal bu mu ngi nii fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin tabarakallahu ahsanul xaaliqiin daanaka sama ndijaay si sa jinge ak moom ñoo ko taxawal ci lépp te ku ne xam ne Mansour ni mel mu nga làqatu may am na ñu ko fi taxawal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin waaye nag xam naa ne dafa guddi lii dama ko yàggoon a bind fa tabarakallahu oustaz mi sax laa ko joxoon fa tabarakallahu donte bindu jàmbur toujours nag jàmboroom wax ca tuuti day baax waaye diggoon naa fi shérif itam pour def ko sax ci ab bande xam naa nag loolu laay def ndax loolu lépp xaju fii waaye fa tabarakallah voilà voilà c'est ça noonu la ñuy def te def taaliq ci biir rek te liir ci ñetti bayit xëy na fa tabarakallahu axsanul xaaliqina di kontaan ci waxtaan wu xóot wi te baat yi ne lool fa tabaar am na ñoo xam ne du tànn n'importe kii ku ñu tànn rek am na lu nekk ci yow muy setu mawlud faal itam nag Ah, ku ne ku ne xam na Mawlud Fall fa tabarakallahu axsanul xaaliqiina ma ban ah, dayoo la am ci tariqa bi ci gànnaar seetam nekk fii direct fa tabarakallahu axsanul xaaliqiin waaye fa tabarakallahu dinaa eh, am tuuti rek lu wax ci li mu doon waxtaane shérif itam nit di nga jàngee ci nit shérif dafa ni fatiha boo ko bëggee dégg da nga koy juutal firi na ko firi bu yaatu waaye man ci bi mu waxee loolu rek jëm naa dégg la mu wax dégg ca dégg bu gàtt te muy dëgg ndax fatiha mi ngi jeexee ci xayril maxdubi dama koy def man par jumla alayhim wala daalin yàlla ni boo bëggee bokk ci samay nit bul bokk ci ñi réer bul ànd ak ñi àndul ak yonent yàlla muhammad muy benn génnal ci ñàll bi la la ko tiim ca kaw mooy ihdina siraatal mustaqim te mooy la lazina an'amta alayhim ihdina siraatal mustaqim ku ne xam na ko mooy topp lislaam ak yonent bi sallallahu alayhi waaye boo tëbee li ustaaz wax léegi ni yàlla boo tëbee ni da nga koy dem du ñëpp de dangay am foo jaar du ñëpp a àttani mbiram kon ñu ni foo koy ñu ni jamono ji nekk seetal ña nga xam ne ñoo taxaw taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga topp leen daanaka boo toppee ñooñu rek yaa ngay àgg ca malika yoomi diine ja nga jëm génnal ci ñi réer tegul ci yoonu yonent yàlla muhammad te ànd ak ñi nga xamee ne nag dañoo sell ba am xéewalu yàlla ci ci diine ji booy ànd ak ñoom rek yàlla cay tegu ca kaw moo tax dama déglu bi mu nee fatiha da koy juutal rek ma daal di dégg loolu fa tabarakallahu axsanul xaaliqin oustaz wax fi lu am solo rek ci gàttal loo xam ne daanaka am na luñ ci junj tey jii bi ñuy waxtaan ci ci àjjuma ci fa tabarakallahu ci xol ni nga ko war a joxe yàlla dindi ci lu dul yàlla lépp cofeel yeeg yépp ibnu ata illah dafa ne farrix qalbaka min al axyaar yamlahu bil anwaari wal asraar mu ni soxol dind ci lu dul yàlla ba mu set topp gi ñu topp mag ñi yëpp pour dem ci yàlla la moo tax yàlla dafa ni yaa ayyuha lazina amanu taqullaha wa kunu maa assaadiqin nekk fa sax naan mina ak leneen ndax mina bi sax leneen mën na daa dugg cat te fekk àggagoo ca dara ja waaye kunu maa mooy àndal ak nekkal ak am na ñoo xam ne ku nekk ñoom léegi nga àgg as-sadiq yi ne xam ne sidq nag martaba bu rëy la ci ci diine te mooy ñi nga xam ne def nañ taxaquq mu indi taxaquq ba ca yonent bi sallallahu alayhi mooy mooy liggéey woote nga fexe ba doon ko ba pare <laughs> waaw nga dund ko moo tax maa ngi ko naan maa ngi jéem a firi taxaquq ndax laazim la looy jëf ci sa bopp la fa taba da koy nuru fa tabarakallahu am na ñoo xam ne loola la def ba nuppi soog a mën a woote ibda bi nafsika waaw wanha an xayiha fa tabarakallahu mu waxtaan ci lu rëy laa ilaha illallah ni xulloo la dëgg la de ndaxte dafa wàcc ci foo xam ne dañ daan jaamu lu dul yàlla yonent bi ne wax leen ni yii yëpp dun yàlla kii yàlla mooy kii moom lépp te loolu nag li tax mënu fay jóg aussi laa ilaha illallah yi di continuer ba léegi kenn jaamootul awsaan yële statu yële ndax léegi statu yi ñu ngi wékk ci néeg yi nit ñi di ko foowe waaye ba tey léegi ñu ngi jaamu leneen ñu ngi jaamu bakkan ñu ngi jaamu ay mabaadi yoo xam ne ay xuraafaat yoo xam ne ñu nga ca gëm ko ndax fan yi rek maa ngi maa ngi firi fi nga xamee ni al imam al Qusayri ci ci tafsiram bi maanaam falaqta xamal aqaba am ñu firee aqaba ba ci siraat ñu ni xaajiz bayna an naar wal janna ku ko jéggiwul doo dem aljanna ñu ni mooy siraat mu ni waaye boobu firi bu sori la mu ni mu ni mu ni siraat fii nga koy jéggee mu ni falak taxamal aqaba mu ni an nafs wal hawa mooy aqaba bi sa bakkan bi ak bëgg-bëggam yi bari na koo xam ne yaay kenn du sa yàlla lu ko dul sa bopp yàlla wax na ni am na ñoo xam ne ittaxasu anfusahum man ittaxasa ilaahahu hawa yàlla na am na koo xam ne yàllaam du dara lu dul bëgg-bëggi bakkanam kon fa tabarakallahu axsanul xaaliqina léeg-léeg nga gis koo xam ne yàlla ja muy bokkaaleel yàlla mooy bakkanam du keneen léeg nga jiw mu nekk sa passion mën na nekk jabar mën na nekk alal mën na nekk daraja xubul jaax yooyu yëpp mën na dox sa diggante ak yàlla mën na nekk sax sa sëriñ sa sëriñ sax am na foo xam boo fa àggee rek yaa ngi bëgg a ñàkk sëriñ Hmm? ak walla almaal almaal aljah yooyu yëpp moo tax moom ci ci tafsiram bi imaam al xusay eh, al xusayri mu ni mu ni képp koo xam ni reyoo sa bakkan sa nafs ak sa hawa mu ni laa yuflix mu ni doo texe nee na kooku du dem aljanna nee na fokk nga aqaba boobu ni yàlla ne falaxtaxamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba mooy fakk mooy dagg dara raq xam nga bu am jaam dañ ko daan takkal fii buum di ko wamat ci loos bi raqaba mooy loos mu ne nga goreel sa loos nooy nooy sa jëmm ji ci safara mooy nga rey sa bakkan moo tax yàlla ni man inna la ashtara min al muminina anfusahum seen bakkan yi dangeen ngeen ma koy jaay soo a soog a jot ci man soog a jot ci aljanna sa bakkan danga koy jaay yàlla soog a jot ci aljanna waaye li la neex rek ca nga nekk yow doo jot ci aljanna moo tax imaamul Xusayri ni ku reyul sa bakkan ak sa passion fii ci àdduna mu ne mu ni laa tuflix nee na doo dem aljanna <laughs> la ilaha illa allah moo tax laa ilaha illallah boobu xuloo la comme ni mu ko waxee njàng la aussi yeesal la maanaam li ngay wut du sa bëgg bakkan du say passion du lenn bokk na ci li ma neex ci sama mbokk mi Cheikh Ibrahim bi ma ko xamee ba léegi xawma ko ci lu tuur da man léeg-léeg ma nëbbatu di yër football bi ndax dama ko bëgg te kat léeg-léeg ma koy nëbb du ma bëgg waa jàkk ji yëg ko mais sama set bi mooy jikki-jikki am ko aksi rek mu ni maam Ronaldo dugal na ma ni sotti na nag gune ga feeñal na wa damay jóge jàkk jóge jàkka agsi dañuy toog di seetaan ñu noot dama dem jàkka bu léeg ma agsi ànd ak nit koo xam ne du bëgguma bëgg ma xam ne sax ci football bi yaane woon mais Ahmed Gueye da daal di agsi rek ni ma maam maane saane waaw nu mu tuddati Sadio Sadio dugal na ma ni sotti na nag feeñati naa de yàlla na xare nëbbu wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay dëgg la mhm. mhm. ndeysaan dëgg la waaye waaye su loolu de baax na waaye bu ma ko ëppalee nag <laughs> bi shay'in min al baatili ndeysaan mi ngi dalal sama xel de bi shay'in min al baatin waaw ah, léegi-léegi nga rax mbir yi tuuti nag waaw wallaay wallaay dëgg la voilà pour mu gën a am kartan wallaay wallaay dëgg la ngir nga gën a am kartan rek waaye nag ngir rek espèce récréation la la nitu yàlla yi wax ngir gën a amaat kartan ci dem ci dëgg waaw ah, du doon loo xam ne passion lay doon nag buy dox sa diggante ak yàlla kon laa ilaha boobu ñu mu ngi lay dàqloo loolu sa bakkan bëgg jongama bëgg toilette bëgg mbubb bëgg taar ñu sol lu baax nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki day julli ne duñu ko ni waa buy julli day ci kim bi rek mu ni moo ko teyàgg ci yàlla waaw mu ni bu mu ni bu fekkee ni woon xolam mu ni xolam teewluwul yàlla bu xolam amoon xusuux loxo bi du dem ci sikkim bi wallaay wallaay wallaay mu ne waaw mu ni bu xol bi bu xol bi teewlu woon yàlla mu ne kon cër yëpp dal di dal kon sikki moom boobu moo ko tey nitu yàlla yi dañuy jàngale loolu dégg naa sëñ Cheikh du wax lu mel noonu ku xam ne dafa ay peñe sikki mi nitu yàlla bi nii sikki moom bi moo ko tee àgg ci yàlla loolu lu muy firi mooy bëgg toilette bi xubbu dunia bi ci moom xubbu dunia bi ci moom ak xubbu zuhur bi ci moom moo ko tee àgg ci yàlla alors laa ilaha boobu yu bari lay dàq xubbu zaat ah, xubbul jaah xubbul maal ah, xubbu dunia xubbu ah xubbu riyaasa ah, tilka daarul axira najcaluha lillazina uluwan fi ardi wala fasada yàlla nee na àjjana jële ñi fi bëggul a sut ñëpp laa koy jox ñi bëggul a tiim ñëpp ndax bëgg a tiim nit ñi dara jala jaam kay wàcc rek bokkul ak nag bëgg a kowe bëgg sori ci wàllu yàlla bokkul ak bëgg tiim nit ñi mais ñi nga xam ni xubbu riyaasa rek kon fa tabaarakallaahu léegi nag allahu ji nag lañu bëgg nga àgg fa dañoo bëgg dañu lay jàngal kii indi na sirru bi xaaj malik tànn boobu ndax am nañu ñu tànn boo demee ci tariqa bi allah laa ilaha illallah kese junni ci xadra juma baax na gis naa sax ñu tànn allah allah allah allah allah kese bi waaye imaam xaaj malik laa ilaha illallah bi ok te itam nag ata ataxalli qabla taxalli waaye dàqal ba set soo ko dugal ndax yàlla du dëkk ci xol bu sell moo tax farrix kalbaka min al axyaar al axyaar nee nañu mooy jamhu xiir am na ñu ni xiyaar suñu ko plurielé am na ñu ne déedéet xayr la rek ndax moo gën a moo gën a nekk moo gën moo ëpp fasaaxa xayr lu dul yàlla farrix qalbaka min al axyaar lu dul yàlla génn ko soxal bi la yamlahu bil anwaari wal asraar boo ko defee yàlla feesal ko ak leer feesal ko ak sirru asraar yoo xam ni yàlla xol bu mu jubal nga xam maanaam sa sa ngëm dootul déng deng yi ngëm gi day stable danaan këcc waaw sa ngëm dootul deng deng ndax yàlla moo ko fa day leer da xam itam nooy toppee xam ku nekk la mu am ci yow fa tabaarakallaahu axsanul xaaliqiin kon allah allah boobu àgguwaay la am na sax ñu ñu ñu dàq zikr boobu ñu ni loolu xamuñu ko woon jamono yonent bi xamuñu woon loolu te te kat boobu bi si ñi ngi wax ni ñi ngi wax ni bi nga xamee ni bilaal sonal nañ ka ni ko ni ko soo waxul lu bon ci sa waa jële ni weddi nga ka duñu bàyyi duma yi ahadun ahad rek la doon wax daa jël benn tur yàlla ahadun ahad ahadun ahad nekk fi naan laa ilaha illallah ahad ndax dafa àgg moo tax pourtant loolu kenn dàqu ko de waaw noo bëgg nag noo bëgg nag gëme ahadun ahad ahadun ahad ba pare nga dàq allah allah allah min fadlillah wazkurullah wazkuru allah moom kay lay bi dafa bari ci alquran sax wazkur isma rabbik wazkur isma rabbik bukratan wa asila del tudd sa turu borom yàlla dafa ne soo ko firee moo tàmmoo bu la neexee nga ni wazkurullaha del fàttaliku yàlla del tudd yàlla bu la neexee nga ni wazkuru allah ay bi ismihi allah léegi yàlla ni waat waskur isma rabbik tuddal sa turu boroom yi ni mooy ismu zaat yeneen yi sifaat la ismu zaatihi huwa allah yeneen yi rahman rahim latif xabir kabir yooyu yëpp ay zaatiyaat la ay asma li zaatihi ama ismu zaatihi nag yooyu mag ay sifaat la amma ismu zaat fa mooy allah léegi nag yow nga ne allah allah te yonent bi boo demee ci xutbaam gis ca allah allah ibadallah nga demaat ci ahadis yi annabawiya asharifa yeneen gi nga gis ci nga dem ci muslim nga gis ci xadis wàcc ci yonent bi wax ni yowma alqiyaam laa taquumu saaha la yuqaa allah allah ci benn riwaaya àdduna du tukki mukk lu dul dañoo dem ba kenn waxatul allah allah loolu mooy lan tànk ñi ngi koy wax àdduna du tukki xataa laa yuqaal allah mu waxaat ci beneen riwaaya ni laa yaquulu saaxa laa taquumu saaxa àdduna du tukki mukk mukk mukk mukk te mu am ci kaw suuf man yaqulu allah allah dama riwaaya bi sax dama fàttali ni wa ala wajhil ardi man yaqulu allah allah aw kama qaal àdduna du tukki mukk tant que nit a ngi wax allah allah mu waxaat laa taqumu saa xatta laa yuqaala allah allah boobu mooy lan maanaam balaa àdduna tukki rek ñu dem ba kenn dootul wax loolu bu ko kenn waxatul nag àdduna tukki beneen riwaaya ñëw ni laa taqumu saaha wa ala wajhi l ardi man yaqul allah allah àdduna du tukki mukk tànk yu nit a ngi naan allah allah waaw lu tax yonent bi waxee ko noonu allah allah pourquoi répétition boobu léegi kon kon xadis dëggal na ko waskusma rabbika bukratan awa asila waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila sabbih isma rabbikal a'la waaye loolu ku koy compte moom nag day daan da ngay nelaw rek képp ku ko nit yàlla yi boo duggee ci compte leer rek da ngay am erreur da ngay juum juum bu leer nag ndax da ngay doon borom xam-xam ba pare wax lu terre à terre hmm. jërëjëf nee na du borom xam-xam de da ngay doon boromum njàng boog mu bari looy xool ci téere yi da ngay doon borom njàng ba pare wax lu terre à terre utul ilma alladi unzila ilayka dëgg la wallaay dëgg la da doon boromum njàng rek weddi loo xam ni fa tabarakallahu daf lay jóomloo eh, léegi na ma wax fi ma wax yi ñetti baat rek ah xam nga faama bi mu bi fa yàlla jële dama ci defoon ay abiyaat rek faama wuddal xabibi za taxtiraami uskuni fil jinaani daarasalaami waaw faama xam nga wàdd ak wudd moom dañoo nuroo boo demee ci alquran sax ñaari riwaay yëpp dikk na wuddan wala suwaaxa su dee ay warshak yooyu wa su dee ahlu madina yenn yenn riwaay yu mel ni xaf si ni waddan soo naan soo ni woon faama waddal xabibi yow faama waddu sama soppe bi way wi day jub ba tey mais eh, faama wuddal xabibi yow soppey soppe bi zaata ixtiraami yow kii boroom ixtiraam orma ku ne xam na ni fii eh, maanaam eh, dékku mbooloo ci jikko bu rafet nit ku baax rekk ku man uskuni fil jinaani daara salaami waaye dëkkal aljanna waay këru jàmm zaata birrin wa taaxatin wa ixtiraamin kunti tuulal xayaati zaata altizaami di ñëw ci man ma di ko dégg amatan kunti lil ilaahi shahidna min ima ay min ima ya min ima zil jalaali za ngay borom kersa ndaxte dama ko mas a xam bokkoon na ci li taxoon mu ko daan wax ni ko yow balaa sama xol di dal rek ma wutal la jëkkër bu baax loolu sama xol la daan nekk moo tax lu yéeme la lii lu yéeme la dama ko doon yëg ci sama xol néew nañu daje banque la bi te ñëw ba ci moom ma ko nuyoo pare ni ko yow tànk lu ma la jëkkër te man li ma jaaxal mooy nga gis jigéen bu baax ba pare yow ñëwoon ni ko tànk takkuma la loolu mooy moomoo ko lu doy waar la gis bu leem jigéen bu la yéer yéem ci comportement te yow doo ñëw mu ko ni ko tànk takkuma la du dul naan ko tànk wutaluma la jëkkër bu baax sama xol sama xol sama xol du daal ndeke booba yàlla dina indi liy créé liy créé loolu moo tax lii du neen ku ne xam na ne lii du neen li mënta nekk neen maara naa ki fii luhan kullu fi'lin fii ki laa xastu kooku bu ma neexoon it ma fatxu ko waaye alquran andi na yëpp wa sham wal qamaru qaddarnaahu manazila bu la neexee wal qamara qaddarnaahu manazila soo ko defee ibtida mën nga koo def kullu kullu fi'lin fii ki laa xast maa raaynaaki fi luhan masuma la gis ci po kullu fi'lin fii ki laa maa raaynaaki fi luhan kullu fihlin fii ki laaxastu min fiaalil kiraami masuma laa gis ci po jëf ju ma gis ci yow rekk ma mas seetlu ci yow rekk min fiaalil kiraami ci jëfi nit ñi tedd ñi la fa nami fil jinaani jaarata taaha demal nga nelaw ca biir aljanna di dëkkandoo yonent bi sayyidil anbiyaa za ngay boroomu muuñ di boroom mbékk rabbuna zul jalaali barrun rahimun man mutian ataahu xayru mudaami xam nga de sunu boroom bu kawe bi dafa baax bari yërmande képp ko ku ko topp boo ñëwee ca moom doo fa torox doo fa ñàkk doo fa am metit doo fa am lor qad calimti alxayaata baxdu mamarran min diyaari lfana li duuri ixtiraami yow danga xamoon ni àdduna pont la rekk jaaruwaay la ci kër gii dul jeex nga koy yéege jom ca kër ga nga xam ni këru teraanga la loolu danga ko xamoon mastafayti l ama ala rusdi yowman bal salakti rachada nahjal humaami masoo jël masoo tànn réer ci njub amul benn bis boo masa tànn réer ci njub ndax dafa nekkoon une femme intellectuelle tey sol col gu yiw booba yi yëpp xewagul sérif yëpp man xamaguma sérif xamaguma kuy sérif yëpp xewagul di sol col gu yiw elle s'habillait d'une manière correcte elle avait un comportement correct moo tax ma wax ni mastafaytil ama ala rushdi yawman bal salakti rachada nahjal humaami njub kay nga tànn te mooy yoonu sang bu mag ba nag lam taxuunil wafaa astafurlah lam taxu nii point yow day waroo loolu nag la waxante woon la ci sëy ba wiir na ba yàlla ñëw moo tax ma ne ko lamtaxu taxu nii yow waroo de alwafaau fiiki tibaaun yow kóllëre jikko la ci yow wax sàmm ko jikko la ci yow lam taxu lu tax alwafaau fiiki tibaaun walwafa xayru miisatin wa wisaami kuy wut dem ma dem ñu takkal la wisaam mooy médaille walla looy ràññ ko ci biir nit ñi dara gënu ca kóllëre loo engagé def ko moo tax ma ne alwafa xayru miisatin wa wisaami maa qadallaahu faqbalihi dama gënoon na man faq dama bind dama maas bi mais ah qabila yaqbalu maa qada allahu faqbalihi qabil naa li yàlla dogal nag nangu ko ñun dey nangu nañu laysa fil ardi kainun bi mu daami amul kenn ku nekk ci suuf di fi sax kon li yàlla dogal sa dem gi nangu ko ñun nangu nañ gis nga beneen mu daam bi ci dog moom lam takuni misla su ma paree fii ma arrêté ah. kon ma jeexal bi lam takuni mislal lawaati araf na ndeysaan sama sët bi daf ma ni dama bind ci sunu noddkat bi Babacar Sarr xam nga moom li may def yëpp da koo xam ndax day ñëw ci man rek toujours mi ngi toog ci sama wet kon mu ni ma maam maam yow lu tax ku dee rek nga ngay wéy ñu faatu rek ngay wéy mooy yeekat ndeysaan lam takuni mislal lawaati naa fi luga wal xanaa wa shurbil mudaami yow bokkoo ci gaa ñi ñeneen ñi de jigéen ñi nga xam ni ci po rek nga leen di gis pecc yeeg pecc yeeg foy rek ci neen yi rek ci lëxwu rek wal xanaa wala wax ju ñaaw man dama suma ko dégg ci moom wax bu jekkadi déedéet wa shurbil mudaami ña nekk ca sàngara ya dinaa naka def lu nekk yow day bokkook ñooñu dara maa tabarrajti kan nisaa illawaati fi nawaadi yatufna xawlal xawlal li aami yow doxoo di sol te doo muur sa li la yàlla muurloo tabarruj di dem fu la fu la neex dem fu ñu tourné seen la fa déedéet kan nisaa illawaati ni jigéen ñi nga xame ni fi di boo duggee ci club yi fekk leen fa foo jàdd ndaje mu ne nga fekk leen fa yatuf na xawlal li aami di ànd ak ñu baaxul naa yem fi rek te nit ñi wax rek beneen ajjuma rek yaay seet nag ajjuma bu la neex kooku moom duma ci may jàmmit nag hmm? duma la ci may jàmm yaay seet nag ajjuma bu la neex xasida bi rek ngay firi amul keneen koy waxtaan waaw incha allah ma ne ko bi ma ci gën a neex nag mooy bi mu mujj a wax ndax <laughs> daan na toog fii trois mois jëm cinq mois yoo xam ne du dem seen kër pikin yàlla xam na ko daan na toog du dem seen kër pikin léeg damay jaar seen kër papaam ne ma waaw ana mu ngi senegal ma ne ko mu ngi fi de bu wàccee école mu ngi biir néegam lu néew sax lay génn toog ci salle bi boo génnee bu génnee toog ci saal bi rek man maa nekk ci néeg bi. ku tànn jikko. Ah. am lu baax. kon ndax dama doon wax ci diine ak jikko kii ne ma kooku daal boo ma ko mayee. wallaay wallaay boobu xaw ma ko gisuma xam nga xam na xaw ma rafet naam daa rafetam ñaaw. Ah. noonu la ma laa ko waxee <laughs> waaw ma ne ko xaw ma ñaaw na xaw ma rafet na xaw ma patt na xaw ma làgg na ah. ah bàcc nee na fukki abiyaat ak ñaarit nga firi ab alaaji bàccit ku yéeme la. te xam nga lu may jaaxal xoolal li ma gën a jaaxal xam nga dama ñëw rek jox la kayit bi nga maas laa la jox te man xooluma bi ma lay jox te ñaar yi ci desit maye naa ko ca gàmmu ya ba léegi mu ngi koy waaj pour def ko ba zawiya bi pare mu door koo firi ba ma génne àddina 2014 la ko defoon fu ñu tasee mu ne mu bëgg naa ko jàng bëgg naa ko jàng occasion bi tey am mu door koo jàng mooy bi zawiya bi pare yéene ba mu amoon rek la yàlla doxalit mooy fukki fukki fan ak ñaar tey muy mu firi fukki bayt ak ñaar fukki jawhara ak ñaar alaaji bu saaxo mi neex daan na wax ne mu ne treizième sax amut douzième rek waaw waaw douzaine rek mu ne douzaine mu ne treizaine sax amut waaw douzaine rek mu ne tubaab bi sax douzaine lay jaay kon nag li ci des moo di alhamdulilahi rabbil alamin yépp jeex na wala ci jullit yépp liggéey sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakati hadi cheikh xamante ni moo moo tax Maodo bi am tey